ñuy waxtaane ginnaaw euh, bi nga xamante ne teggi nañ ci boppu euh, ONAS euh, kii di Cheikh Dieng boobaak léegi nag wax ji mu ngi bëri Cheikh Dieng def na sorti uh-huh. daal di accuser ki nga xamante ne mooy ministre bi nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane Dièye daal di koy accuser waaye tey démb la jot benn gis benn circulaire ONAS di démentir li nga xamante ne moom la kàddu yi Cheikh Tidiane Dièye yëkkati Pape Ousmane loo ci comprendre Ngoné Saliou bi nga dégloo docteur Cheikh Euh, waaw docteur Cheikh Cheikh Dieng <laughs> ci bi mu ñëwee expliqué li mu jàpp ni mooy dëggam ci mbir yi ak it euh, accusation yi mu teg ci kaw l'actuel ministre bi ñu dénk wàllu ndox mi ONAS hier tamit def na communiqué démentir lu nu mel dàqul it ay poursuites également mhm. euh, ci ku xëy na ku yëkkati ay kàddu yoo xam te ne lu dëgg loo ci comprendre yow waaw xam nga dañ ko fi mettre sur la table ne du ma ci waxagum hmm. yaa ngi koy rappelé wu ma jot wala ma xaar ba man li ma ci jàpp mooy benn waxu woon nangu ñu koy jox oto mu koy jël man lool sama gis-gis la ak fu mu mënti jóge ñaar mooy xam nga lan ñoom moom état la nekk da ngay dégg ONAS waaye ONAS structure bu état la te état du ay caaxaan gis nga euh, képp koo xam ne tey jii lii leçon la ci ñoom ñoom ñi yoo ay ndombo tànk nañu xam ne nekkuñu ñoom dong xam nga muy lan dafa ay renseignements généraux am ñeneen ak ñeneen ñoo yor ay information yu ñu téye donc bu ñu demee ba génne information nekk lu ñu ne wala lu ñuy fowee day fekk ñu téye fu leer pour mën ko génne. Mhm. muy ñaar tey mu ngi taqal tutelam muy Cheikh Tidiane Dieye kooku itam génnee na bataaxal pour wane ne lii ak lii moo xew ba ne dàqul sax def ay poursuites judiciaires. Mhm. waaye gis nga enquêteur bu ñu mënoon a wax dañ wax loo xam ne nopp dina dal gémmiñ parce que lu ñu war a laaj tey mooy nan la ñu mën a def tey ba Cheikh Tidiane Dieye ak premier ministre ak président de la république yëg ne moom dañ ko jox oto. tëbuñu tëb nii rek jékki na jékki-jékki dañ ko jox oto donc bu ñu demee ba woon naa xalaat ne ñii fa lañu teg ne dañ maa jox oto yemuñ ci lool ñu ne ña ko joxoon oto boo ko ministre bi yëgee dafa ne ko delloo oto bi ñenn ne dafa jaay dafa jël oto bi jaayaat leen ko donc mbir mi ay enquêteurs ñoo définir ba xam lan ak lan moo xew léegi nag moom wax na ministre bi wax gu waaye bind na bataaxal nañu xaar ba nga xam fan lay mujjee ndax plainte boobu mu wax dana ko continuer wala moom mi nga xam mooy docteur Cheikh Tidiane Dieng dina génn waxaat mami nga déggee ci lan bi nga ko dégloo. <laughs> man de Cheikh déglu naa ko ba pare Cheikh ah seex daa waxul dara. ah ah Cheikh lu mu wax. ah Cheikh wax na kay. déedéet taxawal. <laughs> Cheikh waxul dara ci li ñu ko géré waxul dara ci li tax ñu licencier ko Cheikh daal li mu wax mooy problème crypto personnel la am ak docteur Cheikh Tidiane Dièye c'est tout son ministre de tutelle. man je j'ai regardé sa son point de presse je suis restée sur ma faim sincèrement parce que man pour man <laughs> bëgg kaa gi ma bëgg kaa saa waaye comme dañ laa dàq da nga am avis wax. xanaa di nga wax au moins li tax ñu dàq la wala tu dois d'abord parler oui non c'est-à-dire Cheikh même bu dee trois mois la sax trois mois boobu war na cee mën a def bilan de gestion moom parce que durant trois mois occupé na le poste de directeur général de l'ONAS uh-huh. ban situation la fekk l'ONAS en trois mois qu'est-ce qu'il a entrepris même bu fekkee dara sottiwul xanaa il y a eu des actions à faire rien sur ce côté-là pourquoi il a été renvoyé daal j'ai un problème avec maintenant ce qui est dommage c'est qu'on va jusqu'à divulguer sur la place publique ay gis naa fi ay yoo xamante ne euh, estompé confidentiel euh, top secret yoo xamante ne génn na sur la place ça par contre c'est une erreur et moi je trouve que dañu war a siffler la fin de la récréation dans tout ça parce que xam na lu tax nit dinañ la nommer ci poste dinañ la gommer quel que soit le timing c'est vrai que son bosam gàtt na c'est court trois mois ñu fal la teggi la <laughs> mais kalay fal moo am sañ-sañu teggi la ki la est-ce que Cheikh Tidiane Dièye mais tegg bi ci ci ban anam euh, rawatina moment bi nga xamante ne dañ ko fal faloon ay moroomam moom ñu seppi ko. non c'est pas que du du seppi gi la ñu war a gis pour man li ñu war a xool mooy ne c'est un directeur général qui a été nommé peut-être que il n'a pas atteint les objectifs wala boog il n'était pas dans une logique boo xam ne xëy na gouvernement bi foofu la bëggoon mu doxal. Mm-hmm. mais ñu ñu teggi ko ci place am yow ki lay fal c'est-à-dire que am sañ moo am sañ-sañu folli la waaw wala déet. Mm-hmm. est-ce que non c'est-à-dire quand tu vas jusqu'à communiquer sur la place publique. Eh, ko ci déedéet mais non mais man damaa bëgg nit koo xamante ne tu as le courage de tes idées en fait c'est ça que je veux dire. man bëgguma junj. bul génn pour junj. Hmm. yow da génn pour wax. <laughs> waxal mu leer une bonne fois pour tout ñu xam wax. non bu waxee mu waxaat loolu ay affaire de balu ping pong la fii amuñu fii kenn nekku fi xale pour di arbitrer ay petit ci république la ñu ne république dafa war a sérieuse yaa ngi dégg on t'a nommé directeur général on t'a dégommé de ton poste déjà je ne vois pas de quoi fouetter un peut-être que lii intéressé nit ñi oui la durée bi gàtt na qu'est-ce qui s'est passé man pour man quand il va faire sa sortie il va dire ce qui s'est passé mais man j'ai compris que Cheikh du attaquer premier ministre du attaquer Bassirou Diomaye Diakhar Faye ca passation de service ba parce que à la limite c'était am lu ñu leen nëbb. xëy na looloo tax ñoom ñu ñu. kan moo ko kan moo ko fal kan moo ko fal moom. Bassirou Diomaye. mais alors bu bu fekkee Bassirou Diomaye moom lay ritil il sort pour dire quoi logique pour logique. Cheikh Tidiane Dièye il doit apporter des réponses enfin trouve que pour man cette affaire là il faut qu'on qu'on ñu stoppé ko parce que xam nga lu tax. Mm-hmm. bu ñu ko stoppé wul sa risque d'aller plus loin que li ñu yaakaar nii yëpp déjà je vois certains de nos confrères qui en parce que voilà après il faut grignoter un peu pour wax ne waaw euh, lii scandale d'État la wala c'est le premier scandale d'État du régime de de de truc alors que mën na bañ a yegg foofu un directeur général qui a été nommé mon frère c'est pas parce que dañ la fal que da nga faa a toog éternellement xëy na peut-être que dans une logique et puis li ma ci metti mooy ne je suis toujours sur ma faim parce que ba léegi bu may wax dama naan la xëy na xëy na mooy ne amaguma lu ma leer moom ci li ko fi jëlee te kon boo demee bay def point de presse nga jàkkaarloo ab Sénégal bëgg leeral li la fa jëlee mais parle de li la fa jëlee maintenant cette question de véhicule la communiquer pour communiquer boo dee xool communiquer ONAS bi ça entre dans plus de détails que moom par rapport ak li nga xamante jot na ko affirmer le fait est que une voiture de 80 millions ne serait-ce que ñu wax ko rek ça porte à ci ñoo xam ne dañu ñëw ne dañu bëgg changer doxalin par rapport ak li fi amoon maintenant bu dépassé mbiri oto si c'est des problèmes crypto personnels pour man feneen lañ ko war a que sur l'espace public le linge sale vous plaît mën nañ ko fóotee fu ne ba mu des ci mbedd bi maintenant boo ko lalee ci mbedd ne da ciy am kàddu te comme nit ñi nag ay boromi xel lañ dañuy toog di réfléchir je dis mettez un terme à tout ça Cheikh Tidiane Dieye s'il a tous les éléments yuy war a mën a tax Cheikh Dieng mii noppi <laughs> noo bu dee dëgg la na ko génne mu leer une bonne fois pour toutes et comme mu clore bi ñu jàll ci leneen directeur général bu ñu fi fal xam ne ni ñu amee décision wu fal la ci ab conseil des ministre noonu lay neexee àllarba bu jot ñu wàccee la te buñ la wàccee y' a pas de quoi fouetter demal nga yeggali sa liggéey. faire un bilan ci liñ la dénkoon. Mhm. et puis la vie continue. war na it ñu càmbaraat wala recadrer euh, relation bi nga xamante ne moo dox ci diggante suñu structure euh, publique yi ak seen ministère de de tutelle ñu mën a xam lan moo ci dox. Euh, souvent parce que yenn problème yi. am jaay joxal Diop Pape Moussa. loolu yow jàngat bi lan la. directeur euh, général génn xam nga mami dañ ko tooñ kële génn tamit mu ah. mel ni am jaay joxal Diop la. Ah. war nañu xoolaat li dox seen diggante. Ah, mami li mu wax dafa am solo euh, c'est le président qui nomme aux emplois civils et militaires. Mhm. il pourrait nommer et dégommer quelqu'un sans donner aucune explication. Mhm. parce que moom pouvoir discrétionnaire am la. Mhm. donc sur ce point. y a pas de souci maintenant ce qui s'est passé dans la vérité ci euh, mbir mi nii mooy limogeage bi am na lu ko waral tout le monde a parlé de cette histoire de véhicule à part le man jàpp naa ne bu ñuy jël oto di ko def sa tour day recevoir sa consentement maanaam du ñu fekk euh, jël benn oto rek def ko ci turu Ngone Saliou mais avant de dire euh, nga teg nga ko ci Ngone Saliou faudrait-il nga nga xam turam dëgg sax peut-être que Saliou ne fait partie de son nom d'état civil. kon foog mu jox la carte d'identité donc kon docteur Cheikh Dieng mënu ñëw muté oto ci turam te moom yëgu ko. mënul nekk. deuxièmement problème loolu loolu maanaam euh, li gars yi bëgg a def scandale du problème. lan mooy problème six directions yi nekk ONAS yëpp même société boobu moo leen jox oto synergie la tudd. Hmm. te képp synergie. defal nank loolu foofu c'est là où ça devient intéressant ce n'est pas un conflit d'intérêt du tout ce n'est pas une société buy soumettre di wut marché ONAS mi ngi ONAS depuis régime Abdou Diouf PPP la partenariat public privé loolu doo ko am ak ONAS sax ci boppam état central ci kaw nga koy amal il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que ñooñu yàgg nañu liggéey ak ONAS mën naa la jox direction yëpp six directions yi nekk yëpp numéro châssis bi ñu jox euh, directeur bu ci nekk et c'est cette actuellement oto bi muy dawal fa la ko fekk fa la koy bàyyi DG Faye bi mu remplacé fa la ko fekk fa la koy bàyyi ba fa la ko fekk fa la koy bàyyi te pourtant oto bi ñi ko ko jox c'est la société Souma buy liggéey ak euh, Sojib ce n'est pas illégal attention bëri na fii ay structures yoo xamante ne dans le cadre du partenariat public privé mhm. ñu leen di jox oto di leen tabaxali édifice parfois même allan jusqu'à di leen tabaxal kër am na DG yi DG ministère parce que en fait day dugg ci rubrique bu ñuy wax appui euh, technique appui institutionnel. appui technique appui institutionnel buy dem directement ci DG bi. non maanaam direction yi nekk ONAS yëpp nee naa leen société bu moo leen jox oto. oto kon y' problème parce que problème bi mooy li ma wax au départ que ni warul nekk ci docteur turu docteur Cheikh Dieng. justement looloo taxoon ministre bi di wax yi nekk foofu yëpp ah. looloo taxoon ministre bi di ko.